logement et de l'hygiène publique, maire de la commune de Kaffrine, Monsieur le Président du Conseil départemental de Kaffrine, autorité, Monsieur le Gouverneur de la région de Kaffrine, je dois commencer par vous, Messieurs les préfets, Madame, Messieurs les sous-préfets, chères autorités, élus de la région de Kaffrine. C'est avec beaucoup de plaisir que j'inaugure ici à Kafrine la première sphère administrative, une sphère administrative qu'on peut appeler un building administratif régional, dans le conseil j'ai voulu donner à, à la modernisation de notre administration. L'État, on le sait, depuis plusieurs décennies, avait hérité de bâtiments coloniaux qui ont servi de gouvernance, de préfecture, et au début des indépendances, les bâtiments de serre, les centres d'expansion rurale, par moments ont beaucoup servi aux sous-préfectures. Le moment était venu de redonner à l'administration territoriale toute sa dignité pour que l'État, à travers ses délégués, ses représentants, mais également à travers les services déconcentrés de l'État, puissent travailler dans des conditions optimales. Ce qui a été fait ici à Kafrine, c'est le début d'un programme de construction de sphères régionales. Au moment même où nous parlons, nous avons lancé quatre sphères, celle de Kafrine qui est la première, celle de Sédhiou, celle de Fatick et celle de Kédougou. Si vous constatez, ce sont les dernières régions qui ont été créées et qui n'ont pas pu bénéficier d'infrastructures. Aujourd'hui, elles occuperont le peloton de tête et nous allons rattraper pour les anciennes régions afin que toutes puissent disposer de ces commodités et des conditions de travail où le gouverneur ainsi l'ensemble des services régionaux et certains services départementaux dans un même espace qui permettra d'optimiser les charges téléphoniques, d'optimiser le temps et qui facilitera aux usagers l'accès aux services qui leur sont réservés. Je voudrais, Monsieur le gouverneur Bouyamar, puisque l'histoire retiendra, que vous êtes le premier gouverneur à à occuper cette sphère régionale avec le préfet à vos côtés et même, même le chef de l'État a un pied à terre dans, cette, dans cet espace. Il faut donc que ce bien soit préservé pour les usagers ou par les usagers, que la maintenance soit assurée, puisque la pérennité d'un investissement, c'est d'assurer sa maintenance. en ce moment, l'infrastructure peut traverser les âges. Et je souhaite donc les usagers pour lesquels cet investissement important a été fait puissent en prendre soin. Je félicite nos structures nationales, la SOGEPA, qui est la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État, la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation et l'AGTIP, qui a accompagné la réalisation et cette mise en cohérence de nos différentes structures a permis d'avoir ces résultats aujourd'hui. Je voudrais donc féliciter les directeurs généraux, les directeurs et personnels de ces structures publiques et féliciter l'entreprise alors de M. Thiam qui s'appelle euh, Soaco. C'est une entreprise efficace tels que nous allons voir nos entreprises nationales évoluer, qui font le travail qui leur confié et dans les délais. C'est extrêmement important. Ça encourage à vous en donner davantage. sur les mbokk yi am nañu mbégte lool tey ñëw fii ci Kaffrine ngir inaugurer sphère ministérielle bi ministre Fofana moo yoroon urbanisme ñu amoon xalaat bi waaye mën naa seede fii ci kafrin ministre Abdoulaye Sow ni mu ma sonnalee pour que sphère Kaffrine bii mën a taxaw dem na nag sax ba tegal leen fi gaynde kon nag nag bu la nuroo pale nag bay laaj nag indépendance mais en tout cas vraiment léegi sax laaj nañ ma ci jàmb jàmb jàmb yooyu tudd jàmb joo bi nekk pale xanaa ko dinaa leen ci yónnee eh, na ngeen leen di may dugub nag ak yooyu donc lii dafa am solo donc vraiment gàcce ngaalaama Ablaye eh, Ablaye Wilane aussi ñoo ngi lay gërëm di la sant kàddu yi nga yëkkati si biir léegi di gërëm suñu administration parce que nag ñoom ñooy li ñuy wax la colonne vertébrale de l'État kon ku leen gis war na leen naw ndax mission yi ñu yor mission yépp seen loxo la nekk lépp lu ñu def ci kaw ñoom ñoo koy doxal ba mu yegg ci population yi may gërëm les maire les présidents de conseil départemental di gërëm donc gouverneur ak préfet yi ak sous-préfet yi ak seeni adjoint di gërëm waa CRD muy services régionaux yi fi nekk di doxal nguur gi fii ci Kaffrine Kaffrine nag moom moo ubbi moo ubbi mbir mi waaye jamono jii ñuy wax waa Sédhiou ñu ngi fay tabax lu mel nii Fatick ëllëg lay teg première pierre après Kédougou moom lañ ciy teg programme bu njëkk bi ñeenti sphère yu mel nii la maanaam ay building administratif su ko defee yeneen région itam ñu mën leen préparer beneen beneen programme bu ci tegu ak sous préfecture yi fàttewuñ ko ak préfecture yi nga xam ne ay chef lieu de département lañ donc li nag mooy Sénégal émergent maanaam Sénégal buy dox le temps de l'action dafa wute ak temps de la parole wax moom euh, xam naa ne buñ doon def concours ñun duñ sax bokk xamoon nañu ko waaye nag jëf ji depuis l'indépendance xam ngeen ne mosul am ci Sénégal loolu loolu mooy dëgg lii nag dañu war a yaatal rafetal vraiment taaru Sénégal lii bokk na si kon jërëjëf gis naa ni d'ailleurs tudde nañu ma sphère bi alors même que Abdoulaye Sow xaarul ba dégré bi ñëw waaye en tout cas nangu naa ko jërëjëf jërëjëf kon nag mu ngi leen di sant maa ngi gërëm nag balaa may dem presse bi parce que dëgg-dëgg depuis bi ma tàmbalee tournée bi ci Kédougou Kaolack démb tey Kaffrine ak ëllëg Fatick gis naa seen liggéey yéen a ngi koy def ci anam yu rafet te léeg sax condition yu jafe ndax naaj bi tàng na gars yi joxuñ leen ay kap xaw ma ndax dinañ leen jox añ wala reer waaye loolu xëy na Ablaye moom fii bëri na teranga da ngeen leen di bàyyi xel ñoom parce que ñoom ñooy tax ñuy jottali li ñuy def donc merci beaucoup pour la presse et le travail que vous faites